semaine du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba bi ñu amal ca musée de civilisation noire nekk na ab occasion ngir exposer ay œuvre yoo xamante ni bàyyi na ko fi ba tax na kii di Assane Sarr bokk ci équipe organisatrice yi daal nay ñëwaat ci solos exposition yooyule le njariñ yi nag moom yaatu na ndaxte bokk na ci li nga xamante ni si day gën wone waat jëmmi sëriñ bi ak lii gën a taxaat tamit mbokku taalibe yi gën koo bàyyiwaat xel moo waral ñu des yitte ju yaatu ngir mën a taxawal lii diirub ayu bis maanaam semaine boo xamante ne si dañ koy jagle loolu moo xam muy dàllam moo xam muy yëreem moo xam mbaxana bu bokk ci moom moo xam ay këll yu daan jëfandikoo wala satala lépp loo xam ne rek maanaam sëñ bi daana ko jëfandikoo mën na mu ngi ci barab bi. mu nekk ab opportunité ngir ña nga xamante ni ñoo fay ñëw daal di découvrir patrimoine Cheikh Ahmadou Bamba ba tax na ñu ngi ñëwaat ci li nga xamante ni moo leen gën a marqué ci exposition yooyu. soo xoolee d'abord ci côté satala yi ngay wax euh, façon euh, matériel ak outils yi mu yoroon da gis ne ku simple la woon waa te simplicité boobu noonu ñoo ngi koy jàng ci moom. te jeunes yëpp war nañ copier jeunesse bi yëpp d'une manière générale war nañ copier euh, ci façon dundinam mais suñu gënee xuus man li ma gën a frappé mooy euh, côté mbindam parce que à chaque fois ñu ngi gis ne moo ngi julli ci yorante bi te euh, ak ni mu koy defee façon mu ngi koy defee doo yëkkati xasida pratiquement te gisoo ko façon boobu noonu en tout cas man frappé bi na ma particulièrement journée bi fu mu tombee dafa nekk foo xamante ni lii solution la pour jullit yëpp ñëw jéem a barkeelu fii taataan si jëlee fi jëlee fi leer daal ndax dinañ fi jàngale ne wane nañu ñun ñëpp ay mbokk lañ nekkul ne kii murit la kii tijaan la kii lii la mais fii ñun ñëpp fi war a daje ngir jëriñu ci jàngalem sëñ bi. mu nekk semaine du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba exposition yooyu. nekk loo xamante ni ñëpp mën nañ ci jàngee ay leçons waaye itam di fàttaliku héritage kii di Cheikh Ahmadou Bamba.